maa nga port conteneur yi la yenu fan yi conteneur nga wax de conteneur xam moo ay lenge ñoo ko daan wax déglu lii tam yow nga wax la déglu ma rafetlu seen àndina ak la meilleure chaîne di net la chaîne des leaders Senbuzz TV mbokk dañuy am mbégte kontaante ci di janoo ko yéen saa su ne xam ngeen ni tey euh, dañu yendoo benn euh, tiis boo xam ni daal na ci askanu Sénégal dal ci ñi nga xam ne ñooy ñooñ culture de manière générale muy génn ak àdduna ki nga xam ni mooy Mbaye Sapar Sapar euh, ki ñu toog ak tey dootuñu ko présenté ci culture muy Alioune Mbaye jot liggéey ak jëm ji xam ne moo fa jugee waaye tamit nekkoon xaritam xam ko lool tey rédaction bi ñëw ngir jaale ko soppee bi nga xam ne jigéen na fii Alioune Mbaye mbégte la mais dañuy commencer rek vraiment di la jaale li nga xam ne moom la ñu bokk muy génn ak àdduna sa soppe sa xarit ki nga xam ne mooy Mbaye Sapar Sapar. waaw aouzu billah bismillah inna wali yàlla di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ndax li yàlla rek ko sañ te ndeem bu nit demee loolu la ñu digal ñu baamtu ko waat wax dëgg yàlla mbay di nit ku baax di di di ku civilisé macha allah parce que mm-hmm. civilisation du ci yére li tax ma wax ko loolu mooy damay mbay bi ñuy bi ñuy ñëw bi ñuy xamante sama dama am ngénte doom ji ma tuddee Cheikh Ahmadou Kara ma koy xew mu ànd ak ñooxit ñëw ci xew bi te boobu musuma gis mbay xam na ma à distance ma xam ko à distance ma ñëw rek mu nuyu ma ni ma sa sa sawaay de laa wax mu ni ma da am xew rek ma ñëw ma ne ko lii mooy civilisation parce que civilisation du ci yërëmee ci comportement la loolu suñu kóllëre ak moom ci la doxee. ci bisu ngénte. ci bisu ngénte loolu mu ñëw ci te yëgalu ko boobu xaw ma ko. xam nga loolu mooy mbaax. ndeysaan ci nu kóllëre ak loolu ñuy woy ñuy wax téléphone di wax téléphone ba ba may def benn production Serigne TikTok génnagul sax yàlla xam na ko. ma jël ko woo ko mu ñëw joué. sax dina ci ñëw loolu bokk na ci li gën a tax rédaction bi seet si la ngir ñu gën nga nga gën ñu xamle ak moom alors seen relation ginnaaw bi nga xam ne nii ñëw na ci sa ngénte foofu la nga commencé di am ak moom relation lu jiitu ngeen di liggéey. waaw foofu bi commencé nga xam ne day nit ku baax mën a boole ba ci euh, soxna muumi rek daf ma daan wax dee ko tudd. ni ma boo ko tuddee boo ko daggee sax man ma yónnee ko ko. moom Mbaye sapar sapar sapar sapar nit ku baax ñuy déggante yàlla xam na ko. ba bërki démb bërki démb. lañ mujjee déggante barki démb ci ay une heure du matin mujjee déggante di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm demam gi yàlla na yërmandeem euh, a liggéey am collaboration lu jëm ci liggéey boobu nan ma ne ko noonu ba benn jour nag bi ma amee idée bi pour def loolu bin bin tabaskee ba paas ba pare bii nii ci laa ko wax ko yàlla xam na ko mu mu ñëw vite fait ba di ma wax sax di ma koy jaale xaritam bi euh, sëñ Abdou ndungum ndungum nga xam ni ñoom ñaar benn la mu naa ma sëñ Abdou faaw mu ñëw ba ma dégganteeg sëñ Abdou. ba bi ma dégganteeg moom barki démb bi ma paree déggante na ak sëñ Abdou ba ma ko naan pourtant mbay war na fi ñëw ñu waxtaan parce que produit bi am na ku ko bëgg ba mu naan ma non mbay moom fu mu ñëwee rek maa nga fa. man ko non macha allah parce que mbay bi ma ko woowee rek daf ma ni sëñ Abdou ñëw. ñu waxtaan noonu ba ci après ci laa ko woo ci production bi mu ñëw. yàlla xam na ni bi mu ñëwee. production bi boobu ñu ngi def pilote. bi muy dem ma di yëkkati xéewal di ko jox wallahi daf ma ni waay mbay teel sa loxo waay. jëlul xéewal ki ci tournage nga xam ne jotoon na ko Qur'an jëlul xéewal gi. ni ma waay mbay yow nan def rek nan dem rek ba pare di ci dox sëñ Moustapha Dramé bi moo ma njëkk a boole ak moom. dajeeg moom rek waxoon ni ko am na lu nuy def Aline Bay dina la woo taf taf mu woo ma ni ma wóol sëñ bi. Mm. yàlla xam na nga ni loolu mooy yéene ak mbaax. mais mais tamit euh, personnage am ci lii di comédie tamit ñu teel ko nangu mu ko doon defee vraiment d'une façon boo xam ni lan nga ñu mën a wax vraiment ci talent bi nga xam ne yàlla mayoon na ko ko ci comédie. non talent bu exceptionnel parce que li muy def yombul parce que gis nga comédie bu fekkee ni mënoo ko pour mu mënatoon day yomb. mooy maanaam bu fekkee nit bu la dee tegal teg ceebu jën pour ceebu jën sàppi la dafay yomb mais boo xoolee mbay chaque jour bu génnee nit ñi dañ koy recevoir boo xoolee tey te mu génn macha allah Sénégal gépp bëggandoo ko Serigne Saliou Mbacke maa ngi koy ziar sànq mi ngi may yónnee vidéo yi mu def ak moom ah nga xam ne ñoom Balla Gaye ñoom ñëpp nga xam ne tey Sénégal naqar gi ci ñëpp la wàcc parce que mbay amoon na facilité wu communication ci comédie mën a toucher ku nekk ba ba bég loola te du wax lu déborder te du la déranger te du wax lu ñaaw. nga xam ni loolu ba pare te bàyyiwul culture am foo ko gisee di nga gis aspect bawol bawol bi. Hmm. te def koy dugalaale ci comédie te loolu dafa jafe maanaam un artiste dafa war a gàdde liñam maanaam li nga doon nga di ko def di ko incarné te doo ci gaañ doo ci lore doo ci wax lu ñaaw te du tee sa ligne nga nekk ci mbay ku ko gis macha allah doo laaj fan la dëkk te loolu c'est très important moo tax yàlla na ko yàlla yaram wax dëgg yàlla ñëpp am naqar ndax personnage yi mu doon joué jamono bi nga xamee ni yaa ngi liggéey ak moom ci Serigne TikTok nan la doon interprété euh, li nga xamee ni tamit joxoon nga ko ko comme rôle waaw parce que boobu moom dafa am da doon tooñ ñoom Balla Gaye ak Baboy mu ni ma nag dama bëgg a continuer loolu man ko am problème mu ñëw léegi dafa ma doon da ñëw di ñaanlu ci sëriñ bi comme si que dafa war a bëreeg euh, kii ñoom Balla Gaye ci loolu la doon ñaan ñaanlu quoi ñu ci waxtaan am na fu muy wax tooñee xale bu jigéen bi di ko wax man poor laa nekk macha allah di ko wax ni ko ay conteneur laa yenu ba xale bi di toog par exemple di ko wan ni dafa am doole. Hmm. fekk xale bi ko yow bëree kooku mu naan ko xam ni muy muy muy muy lu doy waar waay barke borom sikoor yi muy lu doy waar yàlla ko yàlla yërëm. Hmm. mbay nit ku baax la. su mujjee tëlu waxtaan ak moom ndax mën nga ci dikk ak ñun. bërki dem bërki biig la ñuy wax fekk mu audio ma ni ma waa sa waay sunu projet bi anamu. ma ne ko projet bi de troisième vague corona bee ko yàq ndax seen TV sax jëloon na sponsor ba ma ko mais am na ko ko bëgg fekk am benn kilifa bërki dem ku ni ma dafa bëgg projet bi ñu ciy waxtaan. ma ko mais am na ko ko bëgg. mu ni ma ah yónnee ma photoom boobu. man koo baax na ba mu ni ma day ñëw Dakar bu ñëwee dina fexe ñu gisi ma ne ko incha allah ñu waxtaanaale ci lii laa mujjee wax ak moom tey laa xëy gis benn mbokk artiste dama defoon sax kooku day mbalak ma gisee gis nga mais yàlla moom kenn mënul xëccoog moom wax dëgg yàlla. lu jiitu loolu gëj ngeen gisante yéen ñaar wala. gëj ngeen gisante hmm. parce que souvent moom Touba la dëkk léegi bu daan ñëw taf-taf day ñëw dem wala mu ñëw def naa ci dëju kii bi la mujj mais boobu jotuñu woon gisante parce boobu man maa ngi tourné ji Mbour moom mu ñëw fii hmm. xam nga mais dañuy déggante WhatsApp souvent lu bari. Hmm. mais daal ku baax dem na. seen i seen i tournage tamit euh, certainement dina nekk vide tamit ci produit bi nga xam ne yaa ngi waroon na ci moom pour mu jouer ko. bien sûr moom dafa waroon bokk ba mu jeex 40 épisodes la woon 10 lan defagum dafa waroon bokk ba mu jeex mais yàlla noonu la yàlla noonu la yàlla moom bu dogalee mënoo xëccoog moom. voilà parce que yéene ji mooy ñu sampoon ko ba mu jeex après sëñ Abdou daf ko doon fekke si ci biir pièce bi ñoom ñaar ñu kii parce souvent dañuy jël koo xamante ni comme day door a génn ñu mettre la en valeur def scénario bi ci a nga mën a apporter dara ci sa carrière am continuité quoi hmm. ñun souvent noonu lay liggéey ak jeune talent yi ñëw di ñu fekk ci voilà. ban lecture nga am aussi fi mu demee vraiment ba Sénégalais yi gën ko xam à travers TikTok à travers vraiment aussi wax nga ko yenn ci show yu bare bari invitation télé yi nga xam ne aussi daan na ko am fi ko Sénégalais yi commencé xam quand bëgg ko fa la ko suñu borom bi jógee ban lecture nga am ci loolu. waaw mais moo xam nga dee moom moo doon loo xam ni moom loo ci mën a jàngeeti da ngay jàpp yàllaa ko yóbbu rek ak lu mën a xew. Hmm. parce que yàlla moom nit moom waxtu bi mu war a demee moom ak heure bi mu war a demee nit munu ko munu ko munu ko rëcc. xëy na nag yàlla dimbali na ko parce que waroon na tudd ni nii lañ koy xamee ba mbébétam bi mu mujj muy oto bi mu bëggoon. yàlla dogal na mu am ko soo ko dem kon moom déjà. Euh, li mu bëggoon xëy na def na ko ndax amoon na objectif bu bégal nit ñi yàlla suturaal na ko ci loolu mu bëggoon a def yàlla may ko ci sens mu bégal nit ñi avant moo dem kon loolu yëpp sant yàlla la rek parce que dee moom moom ala kulli haal dee lay tudd te ku dee yàlla moo la rey mm. nit mënul def pexe pour dee kenn mënul def pexe kenn dee mm. foofu lañ koy teg di ko ñaanal yàlla di wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mm. di wax yàlla na ko yàlla teelu ci yërmandeem cat bañ koo jiitu ci bàmmeelam wax dëgg yàlla li mu doon béggal nit ñi yàlla bégal ko ci barzaq lan nga ñu mën a wax ci bu weesoo sa relation ak moom yeneen relation yi nga xam ne amoon na ko ak yeneen artistes yi nga xam ne ñoo nekk Sénégal de manière générale ñëpp moom man mosuma gis parce que boo xoolee souvent booy xool ay ay ay kii yom di nga gis artiste bu ne dafay waxee te ku mu gis dina la jox sa wàccuwaay boo xam ni da xam ni kii macha allah ku nite la. boo gisee ñoom Ibrahima Mbaye Soppe gis nga li mu def da ngay dégg ñooxit euh, man ñooxit moo tax ma xam ko. parce que ñu impressionné ci moom te bëgg naa nga leeral ñu ko c'est vrai que dañ ko découvrir mu nekk koo xam ni dafa am relation ak artistes yi mbër yi wax nga ko alors dañ ko yéex a xam mu yàgg ci culture wala loolu tamit vraiment bëgg naa nga leeral askan non parce que tey dalay wan ni rek li mu nekk parce que nit boo ko nekkee bëgg ci képp koo ci fekk muy sa nawle da nga koy bëgg un artiste aar ku bon bokk ci artiste dëgg pour mu nekk à dafay bëgg nawle artiste am mi ngi mel ni football rek tey mënoo booy football da ngay bëgg football ak ku mën football pour sa football génn mm. moom dafa bëggoon aar ba pare da ngay yëg ni macha allah loolu xolam dafa set parce que moo tax képp ku mu gis li mu lay njëkk wax dina rafetlu li ngay def ba pare rusula wala amul ki ñaanu jël am mettre la en valeur kon loolu xol bu rafet moo koy def am na ñoo xam ni nag ay missionnaire lan maanaam nit ñi dana war di jàngee ci ñoom moo tax duñ fi yàgg parce que xëy na bu fi nekkoon nii rek nit ñi duñ ko met bàyyi xel comme ni ko bàyyi xel tey mais am na ñoo xam dañuy sacrifier seen bopp pour jàngal nit ñi moom ci ñooñu la bokkoon. Mhm. lan nga jàpp tamit moo war a nekk taxawaayu comédiens yi gannaaw tamit a a du day wane ni rek jot na aussi ñu gën booloo gën jàppante ba nga xamee ni yu demee nii bu amee tamit ñoom dinañu gis seen force. ah bien sûr macha allah booloo am na parce que ARCOS yi ñu ngi fi maanaam dee nag dee goo gis nag soññ la ci ñuy dund parce que au suivant la ñun ñii dañuy dem xamuñu kañ la xamuñu naka la maanaam li am solo rek mooy nit ki xàmmee li muy métier la. nga xàmmee ko ak sa diine mu bañ a laal dara sa diine bañ a dugg dara si sa diine ba pare am ak nit ñi jàmm xam ne li nga doon nit ñee la ko def xam ne star stable moo ko gën koo gis nga jox ko wàccuwaayam du tee ngay jaamu yàlla aar métier la rek nit génnagul télé ñu ne ko tegal nopp yi nga yoroon nopp yi nga war a yor wala tegal tànk yi nga yoroon yi nga war a yor métier la comme métier yi dafa gën a siiw rek voilà nit war na fexe ba juddam ak culture am ak éducation de base am ak diineem aar du ko yàq te loolu c'est très important te dee yu mel ni jàngat yooyu rek nga ci mën a am ci yàlla te xëy na mosuñu fa jóge waaye li ni manqué woon nga ko nga rattrapé ko ci lu mel nii parce que moom kon da ngay gis ni ci mbetteel la dem te ci mbetteel gi fi mu ko fekk mooy li mu gënoon bëgg muy sababum oto mu di ko ñaan ndekete yàlla ci la ko nar a yóbboo loolu moo lay jàngal ni nit moom lépp lu yàlla ni moo lay rey allah kulli moo lay rey te yàlla bu ne woon France laay dee visa damay xëy mu yomb ma ma dem ngir wàccee fa moo tax dee moom mi ngi noonu yàlla ni yàlla suturaal ba bu ñuy dem mu fekk ñu ci lu baax mais ñëppay dee projet bi ngeen doon personnalité am personnage bi dañ ko fay bàyyi séquence bi scénario bi continuer wala. bien sûr dañ ko fay bàyyi parce tey du loo xam ni. naka bébétam la woon tamit pour mu génn tamit ndax dina dinañ ko mën a gis balaa yàgg. voilà parce boo xoolee man daanaka sax xawoon nañ gëj a dégg mais bërki dem moo jël audio uniquement pour laaj ma ci loolu. nga xam dafa mel ni kon benn tàggatoo bu ma doon lancé kon ci lañ koy bàyyi wax dëgg yàlla buy daw ñu defal na la ci ki nga xam ni moo fi jóge muy Mbaye Sapar Sapar. waaw li ma gën a marqué moom mu def ko mooy li ma la wax ni la xam nga yombul tey nga nga toll fi nga toll ñu ni la diw dafa am bës yow waxula ko xamante wul ak moom nga jug uniquement paas ñëw ci bés bi. loolu moom wax dëgg yàlla teraanga boo ci weesoon nag waangee buñ ko doon yàppit du la doy hmm. te loolu mooy civilisation te loolu laa ko wax keroog ni ko civilisation du ci yére mais lii nga def mooy civilisation hmm. parce que am na ñoo xam da ngay daje ñun la wax nga ma ko mais ñëwoo man la kon wàccoo nan hmm. parce que nit bu la waxul ñëwoo sanctionné nga ko mais moom xoola yëgu ko te boobu xamante wuñu def may séen ma xam ne kee mooy mbay mu xam ne kii mooy Alioune mu sañ a ci loolu kon kooku wane na tey koo fekk ci bisam mais loolu ak wala nga may nit dafay ñoddi cofeel kon moom wane woon na ni missionnaire la boo xam dafay ràbb di gën a xëcc li rafet dina bëli ñaaw kon loolu yàlla na ko yàlla fay muy ay yiw yoo xam c'est très important. jotoon nga xam tamit lenn ci moom yu demee ni am na soxna am na njaboot wala tamit lu jëm ci li nga xam ne mooy viom de manière générale. non viom moom wax dëgg yàlla xaw ci lu bari. parce que boo xoolee màggal gi sax dama ni ko woon dinaa fa jaar mais mujjuma ma mujj ma fa jaar parce que ren ak ndox mi tegg yi dafa mujj metti voilà bin ma tàggee rek lool laa njëkk a xalaat voilà mais incha allah moom dinaa dem Touba ca ca ca ca robbaak yëpp voilà parce que nit moom kóllëre loolu rek lay jëriñ et puis di ñaan yàlla ñëpp ñu ñaanal ko yàlla parce que stat yi baax na wax ji baax na mais ni ko ñëpp concentré wu ci moom defal ko ay lixlaas fi daawul ko ñaanal ko yàlla te yàlla rek tax mm. parce que loolu la gën a soxla te ji nañu ko ndax kenn ku ci nekk toll nga ci circonstance u stress mbay bégal la mm. nga la yàlla loolu nan ko ko delloo ci ñaan ñaanal ko yàlla yërëm ko mm. mm-hmm. li mbay rédaction seen bés di la ko jaalewaat di la masaw bu baax a baax bu amee message booy jëmale ci acteur culturel yi euh, lan lay doon waa gën a góorgóorlu rek ku nekk jàpp ni moom suba ngay dem waajal sa bopp ci lu ne waaw di surtout gën a bàyyi xel certainement message yi nga xam ne aussi moom la ñuy moom la ñuy développé souvent. ah bien sûr parce tey àdduna moom nee naa la dem gune ne avertissement la parce que affaire yi au suivant la tey bërki démb am na ku dem mërs benn femme maa ngi woo pot ko jaale nga xam ni noonu la parce que. tata Miriam waaw tata Miriam kullu nafsin zaa'iqatul mawti yàlla moom moom bind sama maam moo ma doon wax yàlla ku mu bind dina la rey. nga ni loolu mooy àdduna nañu gën a jàjjiwaat gën a booloo nekk benn nga xam ni bu yi amee du la fekk tey nga nga am gàcce parce que tey booy noonoo nit wala nga def ko dara bu la ko tàggee rek li ngay jëkk a xalaat mooy li ngeen jëflante ci lu ñaaw wala ci lu rafet kon nanu àndandoo rek doon wenn say xam ni yàlla moo fi nekk mooy njëkk mooy mujj fii àdduna la rek waaw di sant bu baax nag fii nga ma fekk ndax yàlla dafa dogaloon bi bin may bi may gis euh, décès bi ma jëm si woon fii monsieur naa Ousmane Ndiaye di kilifa gu baax. ñu ngi koy ñaanal yàlla muy ndaw lu baax tamit ndaw lu am taqwa macha allah. voilà di kilifa gu baax ndax dëgg yàlla suñu wàllu wér-gu-yaram moo ñu ciy dimbali bu baax ndax garab sax laa jël si woon far yàlla li am ñu koy ñaanal yàlla yokk fa saaxaam ku aajoom nar tafaju yàlla bu mu ko fi gis ñaana ko yàlla ci barke maam Baye mi mu yaakaar lépp lu mu yéene liggéeyal seexal islam yàlla mottali lépp di ko ziyaar ci gàmm gi bu baax wax dëgg yàlla. rédaction seen bés di la ko jaale di ko jaale acteur culturel yëpp di ko jaale culture di ko jaale tamit waa Touba Mbacke yëpp borom kër gi fi la fekk tamit xam nga ni dañ koy ñaanal muy ndaw lu baax Seydina Ousmane di muqaddamu Cheikh Ibrahim Niass du koy liggéeyal diine këram ni la fekk ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax rédaction bi euh, spécial hommage la woon ak Aline Mbaye jëmale ko ci ki nga xam moo fi jóge muy Mbaye Sapar Sapar beneen jotaay